makaarimul axlaaxi mbakkaanu yem doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko walil mu'minin moo waral xasida goo kaanaaxan <laughs> yow ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين sunu borom dane la la jiitu woon yow yonent bi yónni woon naa ay yonent ñu indi ay firnde waaye ci gaa yi lànk rek yaa saan woon waaye yàlla nee na ma mbëggoon ñi ci ëpp doole nit ñi ci haadiya seen ngelaw la dégg ngeen ko nit ñi loolu yi dégg ngeen yàlla nee na ma mbëggal ñëpp ñu ne ah kon daal du tukki na mu ne waaye nag fi ne yow da nga tax danaa wàcc dimbali jullit léegi bi ko sëñ bii def wilaayatu boobu bi ko yàllay def muy kilifteef boobu ci Seex Ahmadou Bamba la ko jaaree. Seex Ahmadou Bamba président gi dañoo jàpp ni. mbas mi amoon murtane tax mu def ko déedéet da koo def ba denc ko mbas mi am xas di nga attan lu ne mu génne ko jox ko naani rek ndax mbas daa am murtane bu doy waar nit ñi di faagaagalu di faatu rek naar yi ñëw na ko ah yaa xëy tumuraan la ak dëkk baa ngi toj de sëñ bi waxal gaaw mu ne ko seet xasida na leen bisimila seen seen saafaraan bis boo wax leen mbas bi jeex waaye sëñ bi dana wajjahtu kulliya bi amdin wa moom ilaa waliyil muminina wa sakuur fay ñu ci béy doo sëñ Tuubaa na sama kulliya sama lépp nee na jëlu naa ko boole koog sama cantu lammiñ boole koog sama cantu jëf ñu ne ko foo ko mun a ko ci yàlla bi ne mooy kilifa jullit ñi foofu la delloo yàlla ci wilaayatu gi yàllaa ko ko jox ne ko doxalal yaay wàcc dimbali jullit ñi ku ne xam na ne loolu a xew ba léegi gisaguñ fi kuñ naan kii mooy yàlla waaye Serigne fi gis mu taxawee noonu waaye bi ko bëggee def nag daa tudd île boo xam ne gisuma kenn koy tudd muy île Mayo daf ne wa fi tilkal jazirati waqaftu murtajilan nee na île Mayo laa taxaw de wax li may wax daal ne wafir tijaal yi maa asraktu wa maa nafaqtu bi may irtijaal di jore ko di wax li may wax Serigne Touba nee na waaye fan la taxaw mi ngi taxaw ci géeju Mayam ba jàkkaarloo moom xonq noppi wër ko foofu wax fa lu karabaane yow mën a de waaye nee na fekk ma bokkaliw nee na maslaawu tubaab yi yàlla yi li bëgg a dégg ci taw bi dégg na ko ñu ne ko loo wax mu ne lii yashad bi kaw nii abdama yaxfiru sanba wa kaw nii xadimal Mustafa bahramaayu maa ngi bëgg nga seere ma na maay jaamu yàlla buy jégale bàkkaar yow yàlla na nga seere géej gi seere loolu na man maay jaamam yàlla mi dégg la nga tax ndax ba nga bëgg nga seere bis ci tey ni maay liggéey rasul la kooku la kooku la sëriñ Fallu dugg ci biiram ba jeex sëñ bi sëñ bi weer mu teroo benn fanam rajab ndax yow 350 jours yëpp yaa ci nit ñi 350 fu yaa ngi ci nit ñi di bi jënti te defe naa ne bu ma ko waxee ñëpp danañ ko bëgg ndax dama ko dama koy fekki waaye weer wi teroo la màggal tàmbali ndax weer wi dafa teru nit ñi daa suñuy bagage daal bëgg nañ ñu dem te wóor nañu bagage yi lu kër dana dem moom la ñu àndal ñu di la fekk fii nga di leen jox sa jot ndax fi ne waxtaan ci yow mooy waxtaan ci Serigne Fallou li ñu di la fekk fii ci sa garab gii garab gii nga xam ni dégg na lu baax lu ne garab gii dégg na lu baax lu ne waaye Cheikh ñam yàlla na ko yàlla dolli yërmande ànd ngeen jóge Gede jóge Gede jaar biir penc bi jëm si fii jóge sa kër ci Gede jaar ci biir penc bi jëm si fii pencum Gede mu gis fa garabam ak saa xam daa xaw a dëgg xëy garabu sëñ muy muy xool garab gi mu yàgg mën la garab gi dégg na lu baax lu ne muy garab gi daal sëgg bi daar fekk mi ngi nee na mu dem ba ne mu xaw a jëm kaw mu ne la garab gi de lu baax garab gi de yàgg naa dégg lu loolu bu ko waxee ci pincum gede bu xam nee garab gi ci fekk nee na waxtaan nañ fa lu baax lu ne moo tax mu wax loolu waaye garab gii de waxtaan nañ fi lu baaxul nekk sëñ bi damaa dégg fan yi ngay insister ci ngërëmul yàlla lu bare bare bare te kenn kon da cee war a insister fi jotaay bii ñu jotaayoo bokkut bu déwén bi fi buñ ko fekkee li ñuy jëlee ci bu tey bii duñ ko jëlee ci bu déwén bi fa saadiqul man yan xalib bi hukmihi waxtan waxtan wala yartaqibu amaamahu waxtan fa inna saaka yamnahu min islaahi ma hunaka Sëriñ Tuubaa sa maam ju tedd ji dane ku sa murit dëggu nee na waxtu wi nga toll da ngaa war a jàpp ne fi la àdduna yem kon bu ngay gisee sëñ bi di bëgg ñu téye jotaay lu rek di ko téye bu tey jii dañoo war a jàpp ne fi lay ñu fexe tey jii moom lu fi nekk lépp ñu war ko yóbbu. saara bi sëñ Tuubaa wax ne moom am na ñoo xam moom la ñuy tërbiya isaara boobu man dama ko ci moom. min hum mu rabbin mu raqin bil isaaraati am na ñoo xam ñuy junj rek li ñuy junj boo ko dee def di dem. kon suñu demee ba yàlla def lii mu def. xanaa xamoon na dogal yàlla sëñ Tuba nee naqaree gëm gi tax na yàlla cinquième sixième point la ko def dogal yàlla di ko naqaree ndax dafa am yu neex am yu naqaree waaye dogal bi yàlla dogal cëw neex na lool sa toogaay bii nga toog te sëñ Tuba seen junj na ko léegi nga xam ne sa jotaay ku ci toog genn kàddu mën na koo dégg mu fettax ko foo xam ne sori na waxuma waxuma sax waaye genn kàddu mën na ko fett fu sori bu njëkk bu njëkk ngërëmul yàlla ñi ko daan wut ay xob lañ daan jël di ko laxasoo di lekk lu naqar yi di tëdd ci biti ci àll bi te mënuñoo fexe ba am ngërëmul yàlla waaye nag bi Serigne Touba ñëwee lañu defal mu jege nu waaye lu jafe la woon ndax danaa leen wax lu tax wax ko biñ ko laajee na ko waaw yow ndax da nga jël ngànnaay mu ne ah ngànnaay da moom du ma ko jël ñu ne ko lu tax mu ne yonent bee tax bii xandi naa lil ji naan an xaswatin wa an xawaan dootuma jël ngànnaay dootuma doyadi ñu ne ko waaw léegi nuy def mu ne bii la naa taaba sama man jamono ñu neex rek dama yàlla ñu ne ko lu ciy tege mu ne maa xaboo lil xidam yi te lu mën liggéey ñu nangu ko looloo ñu sooy kat kon xam nga lu des ci pour am ngërëmu yàlla yar yar ku am yar am teggin di dégloo di nga àgg fii jëm waaye rawatina nag boo amee yar am teggin di dégloo koo xam mat naa dégloo sëñ bi yeewoon nañu bu yàgg ci université kat man na yaa ngi ba léegi bàyyi leen ñi nga xam ne ñoo am daraja te lu leen neex wax am na sëriñ Abo gi mas naa dégg wax lu xorom dana mbind yi ci yoon li ci ëpp nañ ko xoolaat ndax diwoo ko bind rek ne jëru topp ndax ne diw li tax topp mbind fi ne loolu lu mat seetlu la diwoo ko bind rek ñu ne jëm toog te diw di nit di juum te yonent bi nag kullu ibni aadama xataa doomu aadama yëpp dañuy juum waaye nag wa kullu xataa ay na tawaabuun juumkat yëpp ay juumkat la te yonent bi ne attaa'ibu mina sanbi kaman laa zanba lahu kuy juum bàkkaar yaa ko amul yéene yem kon kon buñ nee diwoo ko bind rek ñu ne jëm toog. diw loolu indil nañu jafe-jafe bu diw waxee ñu ne diw de ah diw kay lu wax baax na fekk diw mën naa ma lu wax baaxul de sëñ bi loolu la doon attiré attention nit ñi daal na na ngeen moytu borom daraja yi wax te lu leen neex wax ku ko muy tur ñu sànq sa adduna sa adduna nee na si tabawa seen bopp rek ay tax te sëñ bi nit bëri na ak réer ne ci moom ak ñaaw askan wu ne ci moom boo amee teggin rek kenn sama ma ko wa huwa alladi jaala usna al adabi yuxfi jahalatan wa hukma nasabi nee na nit dana ñàkk xam askanam ñaaw waaye nee na bu toogee na pat yor ay teggin kenn du ko xamal dara daal ne wutil xam-xam fu la soo demal ba siin comme ni ko yonent bi waxee ut la wala ilm wala fi siin nga dem ba ñëw yoroo teggin kenn du la kenn du la faale fa kasratul ilmi bi gayri adabi jaalibatun lil ada wa taabi loolu sëñ Tuubaa ko wax sëñ na daara ji ñu may defal ci Tuubaa si bu jëloon mënut a am jël waaw sëñ bi ko banaa leelu ko dóor lu la te lu ci gën a doy waar mooy bi nga koy gi mbaram góor góor fi ne mu bàyyi ko fi dem Gabon te Gabon la bindee xasida boobu gii mu waxee loolu te bi wax naan yàlla tabaxal na ma école boo xam ne dana dindi ñàkk a xam ak ñàkk ak a réer ak coonay adduna sëñ bi gërëm doy na war loolu te te mbaaram benn mbaaram dóor dóor la bàyyi fii ñi xamul dóor dóor dóor dóor ñu koy defaree ngeer da ngay samp ay bant di rab la nga teg mbaar ci kaw teg mbaar Serigne Saliou wax na ne booba booba maqaamam dëkk bi weesuwul loolu fii nee na maqaamam dëkk bi weesuwul loolu Serigne bi di wax ne yàlla defal na fi daara joo xam ne boo ëllëgee bu fa jàngee da nga am ay teggin da nga ak xamat dootu nekk ci yow coono yi dootu nekk ci moo tax bi sëñ Mountakha ne damaa toog ba mu yàgg sama yaram yi yëgul yëgul daara ji booba la sëñ bi yëgu te kat jamono yi mu koy yëg ak bi mu doon xalifa mu tudd ñaari weer dem na ba ne dem na wallaahi asim sëñ Basiiru mu sëñ Abdou Xaadir mii nee ko nee naa ko demal ma ci sëriñ demal ma nee ko mu jox ma ndigal boobu sëñ bi yëngal na ko sëñ bi lu mu bëgg mu feeñ day feeñ bi muy wax naan sama jumaa ji dana ñëw wax fir li man banaw la wax banaw mooy fer weer bu paase la yàlla na nga jégal ñi ko tabax moo tax bi sëñ Fallou fekk bi ko sëñ Fallou fekkee jaare mu ne ko sama jumaa ji bu ñëwee ku ñëw na la ci fekk ku dem na la ci wax kooku El Hadj Mamadou Fadil borom li xëy rek la nas ko ilaa xol wara wa maa innanaa illaa ilayka dajaa xam nga lu gën a neex ci wax ji sëñ Fallou ne boo gis muy dox xol bu tàng lay doxee loolu la yàlla daal na wa ahmad dana ahmad alayhim suróof wa maa minhum wa illaa aqoo kabin xarra noonu yàlla defoon ci moom xorom fi ne buñ bindee xorom day yi ngay ba nga xecc ni leen de ndax koo ci gis bu tàng rek lay doon foofu sax day sëgër sëgër rek foofu fi ko famille mu sakkin faqara wamin mu sakkin balan wamin mu sakkin daynan wasa min mu waxa waaye wax na foo wax ñu xorom rek am kuy jàmbat ak ñàkk suñu borom daal noté mu ne na kuy jàmbat balaa suñu borom noté mu ne ko waaye am na kuy jàmbat ay nag suñu borom noté mu ne ko waaye nag taxawal yi ba yow nga jiital ko de ndax ñett yëpp a nekk fi mu ne ñàkk na balaa ngi ci moom boole ko bor yi nee na bay ma ko jiital borom bor yi nee na borom bor yi bu féexee rek jàngoor yëpp dañ sëñ jàpp mooy sa toogaay bii te sa taxawaay yaa ngi dimbale jàmm ñu naa fii na la li nit ñi xew yow fekku la ci gaa di ñàngal rek waaye jëru ko nag da jëru ko nag xam nga ñàngal ñëy guré ko si gémmiñ fees dell nga di ko puusu nit ñi jëlal béjjën takk ko nii bëgg a tiital nit ñi jëlu ko yow civilisation nga dakk yàlla yàlla dakk waaw boo génnee toog génnaale génnaale super son jël bi long ku la romb am lu mu yëg yëg googu mu yëg rek mooy defar biiram yàlla dafa bëgg lu rafet waay inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba lu ñu wax dañuy indi addis teg amul ku ñu mën a weddi min huna ila makkata mukarrama inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba yàlla nee na damaa tey damaa bëgg lu tey moo tax boo ñëwee ba toog yàlla day daal reena sama waa ji yëpp dana waaye ba ñaam ñi ñëw lu ma dóor butéeli yow doo ko biteel yi doo ko jënd rek gaa yee koy jënd biteel wala gaa yee fii ci benn wax naa fii ne léeg-léeg ngay wërlu biteel ñu toog di ko xaar lu mat 30 minutes biteel du ba ngay soññee te mën nga saa yoo xëyee génn ñett fan teg ko ne ngir loolu waaye bëggoo lëndëmal xel yi yow sa mbir dafa leer yàlla dogal mu leer leer ñaan doo ci tafli dangay dangay ëf loolu nag am naa ci xisa sëriñ Sall daan ko mos a ñaanal tafli ko mu ne ko xanaa xamoon ne kuy ñaan di tafli daal mal si luy si rek sax daal jël ëf xanaa gisul woon fu may fu may ñaan damay ëf di man gisul woon damay ëf yow da ngay ëf soo ëffee ba noppi wax nañ ko jëfandikoo xanaa xamoo ne temps bi ngay jël ci nii jëfandikoo ñaan gi rek ci laa amee yaakaar na temps bi mu ciy jël ngay jël kaas bu mag benn bis xaadim ne xaadim ko def xaadim dane da ngay da ngay jël kaas kaas bu mag a mag mu ne kaas bu mag kii jeex na kaas bu mag kii mu ne da ngay xelli ba mu fees nga naan genn wàll genn wàll nga def ko seeram tàmbali ba bëj-tal ki lépp tooy bu su suba saa nga defaat noonu ba muy ñeenti kaas di ñeenti fan bitel bi jeex jeex kan nga gis muy jël temps ci loolu temps ci loolu te ku ko jël boo demee boo ñëwee danga naan man de damaa ñëw gisat ci gën nga yokk ci tawat ju ne fekk na la fii waaye boo ñëwee rek yàlla ne maa koy xaar ndax kii kat jox na ba sama cër gaa yi ne yawa nga ne du man yàlla loolu sa sa waaju yawa mu ne du man ba mu xëy na ah, nag da man ma a tey nag mën a sëñ Modou Fapal Folonka Serigne Saliou Mbacke jóg na ko sama sama sama oto bii ma julli see it du dellu te na nga xam ni du dellu te loo wax nangul nañ la ko nangul te xam nañ ne moom sëñ Modou Xafaan daal ne jébbalu naa jébbalaale ñëpp te defe naa li ma def ñëpp danañ ko gën keroog lañ wax ne sëñ Sonia bi keroog ay rongo di ko dëggal sëriñ Sonia bi wax nañ ne mosaan toog fii ci këram gi ñor wal yi daal ne sëriñ sëriñ sëriñ Fallou bi bëgg a wax donc yi lay jàngal ne waaye dama ba ne asalaamaaleykum ñu jëm mu ne cëy koo xam ne lu noppi lu wax yàlla def sëñ Sonia ko la kon sëriñ bi ñi ngi bëgg ci sa gan yi bu baax a baax ndax itam nag itam nag lii ku ko waxul dafa ragal te man fi ma fi ma juddoo ab ragal juddoo te dañ maa jaarale ci baram nag lii nga wax nii man dama ko dégg cin samay nopp Serigne Sall dama sax xam naa ne gërëm naa boobu laa bëgg gis man ko gis samay doxee sax xam ne borom gërëm naa bilaay walaay wa taala sëñ bi yàlla nu boole te bi nu yàlla boole gis naa ci yow war a ànd ndax sax mate nga ko yàlla def na ci yow dëgër te li gën a yéeme sëñ bi dëgër te dëgër dafa am solo lool ci nit ndax ku xam da ngay dëgër te sëñ laa xam ku dëgër ndax li ngay dox jëm ci wóor na la ne bu juunoo ci nit ñi ci jàmm lay mujj nga dëgër dem rek xuus buñ la def ngay dëgg àdduna bi seen pexe daa ma sa ñëw Serigne Sall ne ko mbooloo mi dañuy wax ne sama cant gi tuugariwu la sama digg ak yow Mbacke kat dem naa ba a tiit ndax damaa xam li ma def su ma demee bay rey nag di mel ni ah, ñi gët may bëgg a jàngal sëñ bi ne ko yii dañ laa bëgg a taxawloo de wéer de. yàlla na yàlla nañ yàgg fekk tey ñaanal sa waat sa kilifa yu tedd yi Cheikh Mouhamadou Moustapha yàlla yàggal ko fi loolu dëgër ay yëdagul laa mën na sax ak njaboot Serigne Touba gépp di ñaanal Serigne Abol Baraka ibnu Cheikh Mouhamadou Fadil xalifaam yàlla yàggal ko fi loolu te wér mbokk yi kon dañuy foofu la ñuy wàccee suñu kàddu rek